asalaamaaleykum sama gars ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci réew mi sport ñëw ci xibaar yi tey ji nii ci àllarba bi yemoo ko le 14 août 2024 bu fekkee ne abonné go abonneel partagé lii di vidéo bi c'est hyper important pour lu jëm ci wàllu chaîne bi pour jàllale si publicité aussi mën ngeen ñu contacter ci numéro yi ci suuf daal di dañuy disponible ci toutes les plateformes ñëw ci xibaaru guddi gi. xibaar yi dañ koy commencé donc ci loo xamante si nii di xibaar bu neex supporter yu Manchester City ndaxte kii di Oscar Bob Oscar Bob bon bokk ci xale yi nga xam ne Pep Guardiola jox na leen chance ci li nga xam ne mooy équipe boobu di Manchester City pour que ñu mën a wane li nga xam ne moom lañ capable moom nag mu wane ko bu baax a baax bokk na ci keroog passe décisive bi nga xam ne si def na ko contre Manchester United ci final. li nga xam ne moom mooy communauté sil bi si but bu kii di Bernardo Silva donc moom ki nga xam ne mooy doomu université bi gars yi malheureusement donc dafa blessé blessure bu méttee méttee boo xamante si dina toog ay weer yu bëree bëri am na sax ñu wax dina toog lu muy tudd lu mat 3 jàpp ba 4 mois yoo xam ne du mën a football kon ki nga xam ne moom mooy Oscar Bopp malheureusement kon ñu ngi koy ñaanal donc mu gaaw jël si waat ci li nga xam ne mooy terrain bi léegi nag yaakaar naa ne lay amatul. Hmm, les euh, pour Manchester City Manchester City dafa war a recruter un attaquant après le départ de Julian Alvarez et la blessure de Oscar Bob faaw nga recruter ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee Bruno Fernandes nee na bu fekkee ne renouvelé naa sama équipe Manchester renouvelé naa sama contrat ak Manchester United loolu li muy wane mooy dañ maa tegal a projet bu leex ma wóor ne ma donc fii bu ma fi toogee damay gagné li nga xam mooy ay mooy donc dañ ko jëndee woon tey rek euh, au delà donc salaire bi. Bruno Fernandes dafa doon joueur boo xam dafa am ambition donc yaakaar naa ne Manchester United bu ñu bëggee di ko renouveler ay at yu bëree muy continuer di il fallait que Manchester United aussi jéem dellusiwaat donc di xëccoo championnat bu Angleterre di gañewaat ay Ligue des champions comme ni ñu ko xamee woon à l'époque donc de kii di Alex Ferguson. après donc ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee Cole Palmer nga xam ne yokk nañ contrat yokk salaire am bu wane ne donc dafa def saison bu rëy rëy foofu ci Chelsea Chelsea tamit li bëgg mooy récompenser doomu Sénégal bi di Nicolas Jackson yooyu Jackson tamit ñu toll nii moom la ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di euh, Todd Boehly ak i gaañam ba nga bëgg yokk li nga xam ne moom mooy contrat am teg ci yokkaat li nga xam ne moom mooy salaire am daanaka en général bii euh, yokkuñu li nga xam ne mooy contrat am euh, donc pour pour donc gën ko sécuriser mais dañuy yokk contrat pour. pour daal di koy récompenser maanaam pour sargal ko pour sargal ko nag mënuloo def leneen loolu donc yokk li nga xam ne moom mooy salaire am wan na ko donc la nga def daaw lépp jaar na yoon. gaa ñi dañuy wax ci milieu de terrain bi nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Gruda nekkoon fële nga xam ne mooy ca Mayence leer ma naa ñu léegi joueur bu équipe bi ne moom mooy Brighton la gaa ñi kii di Fabian Schürrle di kii tàggat équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee donc waa kii di Brighton def ci xar tànk tuggéem Brighton na gaa ñi def na ay recrutement yu intéressant comme kii di Mats Huijfer comme kii di donc kii di euh, Minte Yankuba Minte le Gambien et cette fois kii di Gruda en tout cas équipe la boo xamante ne nii mi ngi continuer di attirer ay joueurs yoo xam ne ay joueurs am talent gaañi ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee kii di Wilfried Zaha di doomu Côte d'Ivoire bu nu moytuwul du delluwaat ci championnat bu Angleterre en tout cas équipe bi di Crystal Palace di ancien équipe bam moo ci njëkk dugg def ci liggéey mais après donc li nga xam ne loolu c'est presque impossible maanaam lu mënta nekk la Leicester City aussi jot na ci def liggéey bu mu ci ay poursuivre ko mais daal salon li nga xam ne moom mooy les dernières informations ki nga xam ne si ne moom la ñuy tuddee Wilfried Zaha dafa jël donc ndogal pour daal di toog foofu nga xam ne moom mooy ci biir Galatasaray ci Turquie on verra est-ce que loolu dinañ ci am plus de confirmation dans les prochains jours gaañi Manchester United ak ki nga xam ne moom la ñu tuddee Paris Saint-Germain am na liggéey bu rëy rëy bu ñu war a amal ci fukki fan ak juróom yu mujj ci mercato bi ndaxte kat kii di man sa Manchester dafa bëgg kii di. Manuel Ugarte kii di Paris dafa bëgg kii di Jadon Sancho actuellement nag benn donc yoon waxtaanu guñ ci diggante ñaari club yi pour daal di mën a donc waxtaan pour weccoo waaye nag xam leen ne lu mën a nekk la ñu ne Manchester United ak Paris ñi ngi waxtaan pour weccoo en tout cas United mi ngi continuer di négocier avec Paris pour Manuel Ugarte et Paris aussi di continuer United pour kii di Jadon Sancho ki nga xamante ne moom la ñu gaañi Amine comme ni ñu ko fi annoncé woon keroog équipe bi nga xam ne moom la ñu waa kii di. Olympique de Marseille juguñ ci loolu ba tey maanaam daal boolewuñ ko ci li nga xam ne mooy seen plan ñoom équipe bi nga xam ne moom mooy waa Olympique de Marseille ba tax na keroog waxoon nañu ne mi ngi ci euh, fi ñu toll nii nag dikkaatuñ lu bees ci côté Genoa mais liñ dikk lu xamante si ni daal du lu bees tamit mooy que man équipe bi di Marseille ba tey jii soxla wuñ ki nga xam ne moom mooy Amine Arité équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Marseille def nañ proposition bu toll ci fukki million ak juróom bu nu sukkandikoo ci journal français yi ki nga xam ne moom la ñu tuddee Elix donc di donc euh, benn joueur bu nekk fële ci Torino ah, pour man nag euh, laataaka nag ki nga xam ne si ni moom la ñuy tuddee. kii di Élixir euh, di dikk marché marché dafa war a regresser bi au niveau du milieu de terrain par exemple jaay ki su demee ne kii di Veretout ou bien donc Ron ou bien keneen beneen joueur mais yaakaar naa ne recruter kii di Élixir donc bàyyi fi ñooñu euh, c'est pas donc une euh, lii di bonne idée. ay ci jamono jooju aussi olympique de Marseille ñu ngi continuer di waxtaan ak Norvège def nañu li nga xam ne mooy deuxième proposition pour recruter ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, kii di Jonathan Rowe donc Jonathan Rowe nekk euh, benn ailier buy football donc ci équipe boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee donc Norvège ci deuxième division championnat bu Angleterre. kon beneen offre bi dem na tey jii nii ñan toog xaar lan la équipe bi di Norvège di di ki nga xam ne moom mooy Marseille mais xam leen daal offre bi prêt la maanaam ñu abal leen ko avec option d'achat obligation maanaam daal option boo xam ne si nii daal soo jeexee dañu koy daal di jënd par la force toujours donc foofu ci biir euh, France ba tey wax ci kii di Ryan Messi gaa ñi Messi dem na fële ci Strasbourg mais pas Lionel Messi mais bi Ryan Messi ci benn club bu ñu tuddee Dijon benn club 4 millions donc pour daal di mën a pour somme de million 1 million benn million la donc pour daal di mën a signé donc ci boobu nga xam ne Strasbourg donc kii di Ryan Messi mi ngi continuer donc di lii di topp carrière am ni mu ko toujours wax ci di Bary Brunex Brunex di benn attaquant allemand bu nekk fële nga xam ne mooy ca Dortmund Dortmund amoon ci moom yaakaar trop mais nag joueur bi ci daa mel ne dafa gis ne fa Mbappé aw ba toj moom war na faa mën a aw toj mooy fan AS Monaco mi nga Camara Ismail Jakobs eh, kii di Krépin Diatta donc kii di eh, Bruno Gagny di donc doomu allemand bii nii mi ngi ci yoon eh, pour suñu jëfale ci AS Monaco en France et que transfert bi dina dikke équipe bu AS Monaco boobu noonu lu toll ci 4 millions donc bientôt dina signé contrat am accord total am na léegi mat na sëkk diggante ki nga xam ne moom la ñu tuddee euh, kii di Paris ak nga xam ne aussi moom mooy Stade kon ki nga xam ne si mooy Paris dina a jël ki nga xam ne mooy doomu France bii nii xam ngeen ne Bayern na pour ne donc dafa bëgg rester foofu ci en France et signer donc ci club boobu kon li yàggul dara dina def lii di visite médicale et signer li nga xam ne moom mooy son contrat fii ak benn fan wala bu yàggee ba yàgg ñaari fan ki nga xam ne moom mooy AC Milan fës na yéene jënd ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Youssouf Fofana way Youssouf Fofana mi nga xam si ni offre bu nekk gis na ko bu jege championnat ba ba à chaque fois même parole lay wax maanaam daal moom AC Milan rek la bëgg bëggul beneen équipe donc équipe bi nga xam ne moom mooy AC Milan na beneen proposition boo xamante si ni daanaka day tolloog la nga xam ne moom la AS Monaco sàkku ci kii di Youssouf Fofana kon fii ak 24 heures war yàgg bu yàggee ba yàgg 48 heures transfert bi dina am dañuy wax ci beneen doomu Côte d'Ivoire ñu koy tuddee Boga donc Serigne Boga mi nga xam ne ma nga fa li nga xam ne moom mooy ca Nice am na nu muy demee dina delluwaat ci biir championnat bu itali delluwaat moom day wane donc nekkoon na fa woy nekkoon na ci benn club bu ñuy tuddee Sao Solo moom ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Boga donc équipe bi di AS Rome mi ngi ak ki nga xam ne mooy Nice pour mën a récupérer récupérer ki moom la ñu tuddee Boga peut-être que dafa nar a confirmer le départ de kii di Paulo Dybala fële ci Al-Qadsia donc ki nga xam ne moom la ñu tuddee Boga gaañi mi ngi négocier ak kii di AS Rome pour une possible retour en Serie toujours donc ci série A boobu la ñuy wax di championnat bu Italie wax ci Juve gaañi def na proposition boo xam ne bu baax a baax la pour recruter ki nga xam ne si ne moom la ñuy tuddee Francisco Conceição donc euh, di euh, jour bi nekk fële ci FC Porto euh, transfert bi nag Juve li mu bëgg mooy ko ko abal bu saison bu jeexe mu jënd ko ñu koy tuddee option de ça obligatoire donc loolu nag la FC Porto rejeté actuellement maanaam daal kii di Juve def na première proposition proposition bi waa FC Porto nañ ko. kon seen numéro 10 mi ngi continuer di bëgg a dem comme jógee fa comme ni fa bàyyam mais nag ba tey mënagul antu kon Juve na yokk offre bëgg jox ko comme donc niñ ci dikki woon tey ak journal bii di huis boo ko ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di euh, Lazio de Rome ak ki nga xam ne pour li nga xam ne moom mooy transfert bi kon ki nga xam ne moom mooy attaquant international sénégalais bi nii dina dem donc foofu ci Lazio de Rome comme ni fa Diao Keita Baldé nekk woon Keita Baldé yaakaar naa ne euh, foofu ci lañ ko xame woon ci biir équipe boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, kii di euh, Lazio de Rome kon ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Boulaye pare na pour continuer ci biir championnat bu Italie malgré quelques propositions ci yeneen championnat yu bokkul gaa ñi continuer leen abonné partager lii di vidéo bi vraiment c'est hyper important pour lu jëm ci wàllu chaîne bi te di jégalu baax baax. concernant donc yenn ci xibaar yi ci demee ne donc match yi nga xam ne amoon na tey diggante Real ay Atalanta donc yooyu dinañ ci ñëw demee euh, par rapport ak temps bi fi ñu toll nii donc am na yu ci bëri bëri yoo xam ne peut-être que demee dinañ ci jot incha allah rabi donc continuer leen abonné partager lii di vidéo bi c'est hyper hyper important. Vitor Roque donc équipe bii di Sporting Portugal bëgg na ko selon Fabrício Romano équipe bu Portugais bii di Sporting bu Portugal fa nga xam ne fa la jàngale football kii di Cristiano Ronaldo moo bëgg a kii di Vitor Roque fi ñu toll nii nag Vitor Roque jëlagul benn décision ci nga xam ne mooy ay mbiram on verra donc lan mooy xew d'ici demee ba suba ak jàmm incha allah.